dal ci AGT news chaîne bi leen di jox xibaar yi wér leen dara bañ leen a raw. AGT suñu jàngatu tey Pape Alé Niang lañ ciy interpellé Pape Alé dafa nekk ab journaliste bu crédible nekk koo xam ne ñëpp koy déglu ñëpp koy bàyyi xel. lépp lu mu wax rek sénégalais yi dañ koy daal di gëm ndax dafa nekk journaliste boo xam ne depuis le début jusqu'à présent gisuñu ko ci lenn ñàkk fayda wala lenn corruption lu war a mën a tax mu daal di xeeblu. Pape Alé moomu noonu dañoo jàpp ni Cheikh Yérim sekk ab journaliste la comme moom Cheikh Yérim Seck génne na ab livre am ne daa def ab investigation am noonu ba toog ne saytu na kii di président Macky Sall ab bilan matériel immatériel am ak itam ñi ko wër opposant activiste ak képp koo xam ne rek yow da nga nekk di yëngu ci làngum politique gu Sénégal moom Cheikh Yérim Seck bi mu defee loolu ba noppi est-ce que jotul tey ma koy laaj képp kuy sénégalais bu bëgg sa am réew Pape Alé Niang dal ñuy bindal ab livre livre boo xam ni dañu ci retracer exactement l'histoire politique du Sénégal waaye itam l'histoire actuelle du Sénégal par rapport ak li nga xam ne yëpp moo fiy daal di xew par rapport ak ay investigation information yi mu yor waaye itam mu defal ñu benn compte rendu bu ama am solo par rapport ak jaar-jaaram homme politique yi nekk ci réew mi ak képp koo xam ne rek mën ngaa jëriñ suñu àpp Sénégal lii mooy li nga xam ni moom la ñuy xaar Pape Alé Niang daal di koy def actuellement dañ koo tëj à ciel ouvert maanaam mi ngi ci kaso bien vrai que mi ngi ci biir këram itam toog mi ngi ci kaso bien vrai que mi ngi gisanteeg ay xaritam ak i am di jàmmam di dox ci biir dëkk bi ndax ku dem bañ tere la wax tere la génnee sab xalaat ci yenn yi nga xam ni yow am nga ci xibaar yu wér te wóor te ngay ab journaliste ça veut dire que yaa ngi ci kaso ba tey te kaso bi nga nekk sax moo gën a métti rëbës wala sebi xotaan ba nga xam ni fa nga nekkoon kon Pape Alé Niang nous pensons que vous avez le temps d'écrire am nga jotu def ay investigation ba tey bu dee li nga xam ne moo di sa liberté provisoire may na la ko nga daal di bind lu am solo loo xam ne du deñ loo xam ne ce sera indéniable comme niñ koy waxee ci tubaab yow Pape Alé Niang ñi ngi lay xaar à ce nga daal di ñuy bindal loo xam ne ko Cheikh Yérim Seck liiree dina damm ab xalimaam daal di naan daa bi xam ne kat roy dunduroo ak piir te dëgg fu mu fekk loo xam ne i waxi kasaw kasaw la dina ko daal di jël lem ko taxañ ko dal di koy sànni à la poubelle Pape Alé Niang nous un livre Pape Alé Niang nous de ce nom Pape Alé Niang nous réclamons une œuvre de journaliste d'investigation qualifié incorruptible digne respecté mais aussi un journaliste qui sa bat pour les libertés d'un journaliste qui sa bat pour défendre sa nation pour que mu mën a jëm kanam ci lii de lañ lay xaar pap Alé ñu ngi lire yenn message yi nga xam ne yaa ngi koy dal di dugal ci sa page Facebook yi ngi koy gis ak kaddu yu am solo yi ngi ciy daal di dugal loole yëpp dëgg la waaye de li nga xam ni moo ñu doon gën la mooy nga produiral ñu une œuvre scientifique une œuvre boo xam ni day def tache d'huile dans le journalisme au Sénégal bien même dans l'histoire contemporaine de notre chère nation suñu am réew dafa toll ci ab virage bu am solo boo xam ni atum 2024 ci la ñuy jàdd ci yoon bu baax bi jaaree fa texe baa ñu jàdd ci yoon bu bon bi jaaree fa suñu am réew perte li nga xam ni moo di avenir am ba faw Pape Alé Niang bokk nga ci ñi nga xam ni am nañ droit bind te dañoo war a bind ñi ngi xaar nag à ce nga def lu ni mel du ñàkk tamit ni yaa ngi ci boobule projet kenn xamul waaye lu ci mënti am mooy lii moo di suñu àpp désir ndax kat lépp luy mën a jëmale suñu am réew kanam ñun dañ ciy daal di taxaw dañ ciy daal di addu li nga xam ne mi ngi xew ci réew mii nekk na ay mbir yoo xam ni kenn mënu koo bàyyi mu jàll nekk na ay mbir yoo xam ne itam faw ñi yàlla may nekk ay boroomi xam-xam nekk ñu mën seen liggéey ñu daal di ciy def li nga xam ni moom moo ci daal di war Pape Alé Niang lii kat la ñu bëggoon nga daal di jug taxaw ci lii la ñu bëggoon nga def ci li nga xam ni moo di sa kéemtalaay kattan bu ko defee satisfaction di nga ko ci daal di am ñun itam dinañ ci am lu bëree bëri luñ ci mën a jëlee comme xam-xam te bu boobaa njariñ lay doon ci ñun njariñ lay doon itam ci képp koo xam ni yaa ngi ñëw ëllëg nar nekk doomu Sénégal bu loolu weesoo am na itam ci loo xam ni lu am solo la ñu war cee daal di wax mooy train express régional bii nga xam ni moo lëmbee dëkk bi actuellement ñëpp di wax kaay leen ñu wax ci teer bi kaay leen ñu wax ci teer bi am na ay explication yoo xam ne gars yi jot nañ ko cee génne di wane SETER li nga xam ni moom moo di àpp liggéeyam par rapport ak train express régional bi le waaye li nga xam ni moom moo ci nekk gars yi c'est très rare ñu la koy génne di la ko wax exactement dañ lay jox ay mbir ak i chiffres yoo xam ne c'est superficiel tey boo demoon ba ci biir la nga fay fekk daal di nekk leneen waaye daal li nga xam ni mën nañ ko cee wax mooy suñu Sénégal gi réew la moo xam ne ba tey ñu ngi ci néocolonialisme néocolonialisme nag boo ko déggee mooy que ne tubaab yi jóge nañu fi ci kàddu waaye boo xoolee ba ci biir ñu ngi fi nii ñoo ñu téye ñoo ñu noot téye ñu nag ci anam boo xam ne anam bu doy waar la li koy firndeel rek mooy que ne laata sax ñuy dugg ci lu jëm ci wàllum doxalin ci wàllum économie fii ci suñu am réew nañu dem rek ci côté administration foofu boo fa duggee làkkum tubaab la ñuy def bindum tubaab la ñuy def njàngalem tubaab la ñuy daal di def demal ci école yi gone yi ñi ngi yeewoo seen ay kër ñu làkk leen wolof baa pël baa séeréer ñu daal di dem ca école ba ñu làkk leen tubaab jàngal leen xam ci tubaab dem seen kër yi ne leen jàngaleen loolu ngeen def ko ci seen biir xel yi bu ngeen ñëw ñu daal di leen évaluer itam ci li nga xam ne moo di tubaab boobu ñu leen jàngaloon ana kañ la gone yi di am xam-xam ñu am itam ab système éducatif boo xam dafa doy waar yàqu du début jusqu'à la fin da ngay gis gone goo xam bi mu war a def ngir am bac dafa yàgg lool pour mu am bac il faut que mu am vingt ans c'est très rare nga gis benn gone gu am bac à l'âge de seize ans dix-sept ans bu amee sax da ngay yéemu naan waaw kii de am na bac à seize ans à dix-sept ans alors que loolu mooy li normal loolu mooy li nga xam ne yeneen dëkk yi boo fa demee fa nga koy daal di fekk copie-collée bi ñu nekkee ñu am réew war nañ koo bàyyi buñ ko bàyyiwul duñ mës a am une école sénégalaise nous avons une école française parce que réalité yi ñuy jàngal suñu école yi bokkul dara ak li nga xam ne moo am ci suñu réew yow ci ay programme yoo xam ni ca États-Unis la nekk ay alena entre autres ak mbir yu ni mel fekk na yoo nit ki moom moom lu mu xam mooy ay falaises de Diass lu mu xam mooy les collines de Kédougou climat yi am fii ci Sénégal vent yi fii soufflé loolee de côté soo demee itam ci lu jëm ci wàllum économie entre autres bëri na ci yu ñuy jàngal yoo xam ne jotewul dara ak suñu ay réalité boo duggee ci histoire itam ñu ngi lay jàngal Chine te la jàngal ay mbir yoo xam ne histoire yu ancienne la ay Mao Zedong yeneen ak yeneen yoo koy google léegi da koy daal di xam di la jàngal loo xam ne dafa ñeel wàllum philosophie deme ci programme terminal ñu lay liirloo ay français yoo xam ni kenn xamul depuis kañ ñoom seen livre yi daal di boo demoon sax biir France xamuñu yooyu les auteurs ñoom ñooy kan tey ñu la koy jàngal ay maami jàmbur ñu tegal la ko di la ko jox loo ko référence yow nga daal di ciy sukkandiku ngir mën ne da ngaa am xam-xam da ngaa dégg tubaab bu fekkee ne doo ci dara na sa déggum tubaab gi lan la amal njëriñ suñu am réew ana Senghor mi nekkoon agrégé en grammaire ndax tax na Sénégal nekk réew mu développé li ñu soxla dëggantaan nekkut loolu ñu jubluwaat ci suñu bopp suñu ay ressources naturelles ñu daal di koy jël téyel ko suñu bopp li nga xam ne moo ñeel suñu ab souveraineté ci côté yëpp nag wàllum njàng njàngale mi wàllum santé mbay mi càmm gi napp gi ak bépp wàll rek bu mu mënti doon ñu daal di ci am suñu souveraineté jàng ay mbir yoo xam ne amal nañu njëriñ pour suñu am réew orienté jeunes yi itam vers l'enseignement professionnel ñu am lu ñu mënal seen bopp laata ñuy nekk ñoo xam ne dëgër nañ enseignement général bi ñu jagleel ko ñi nga xam ne ce de des surdoués ñu dem jàngi ji nekk ay ingénieur nekk ay expert bu ko defee ñu ñëw ñeneen ñi mënul woon wala ñu xamul woon lu bari fekk boobu nekk nañ des techniciens qualifiés ñu utiliser yu jaar yoon industrialiser suñu am réew lépp loo xam ne rek dañ koy soxla ci lu jëm ci wàllum mécanique ci lu jëm ci wàllum technique en général nit ñi maîtriser ko am ay experts yuy xalaat ngir daal di créer am itam ñi nga xam ni ñoom ñooy jëm ci wàllum administration mais mu nekk une administration sénégalaise lii de la ñu soxla ci suñu am réew buñ ko deful nag ëllëg dinañ am ay jafe-jafe yoo xam ni duñu xam jamais fan lañ koy régler te ci problème yii ñu nekk la ñuy daal di continuer dépendre ci yeneen ay réew di xaar ay ndimbal saa su nekk te amul benn njëriñ amul benn sens souveraineté moom réew amul xamal na yaa ngi ci mbuumu ba crise bi ñuy wax ba tey ci la ñu daal di nekk Pape Alé Niang la ñu tijjee woon suñu ab jàngat moom la ñuy ñu ngi koy ñaan par rapport ak lii yëpp ñu fi daal di wax moom mu daal di ciy jug taxaw ci mu jug def ci ay investigation par rapport à la politique par rapport au développement par rapport ak lépp loo xam ne mën naa suqali suñu am réew ñu ci xaar ab livre am Pape Alé Niang ñi ngi koy séentu ci lu ni mel te am nañ ci yaakaar que ne bés bu ci dikkoon dina nekk loo xam ne dina amal njëriñ sénégalais yi bu baax a baax ñu gën a soxal moo ñu gën a yitteel mooy que ne 2024 virage la bu am solo virage la boo xam ne bés buñ ko ratee mooy na ab virage dem uti ay carte électeur pour préparer wu virage boobu noonu pour ñu jàdd ko jàdd bu métti lay doon waaye nag il faudra que ñu am une jeunesse soudée une jeunesse consciente waaye itam une jeunesse éveillée dem concert neex na lool VJ keneen ak keneen yooyu yëpp baax na trop trop nañ ciy dem nag ndax le loisir fait partie de la vie bañ na ko sax ci droit de l'homme yi la daal di bokk waaye nag loisir bala moo ñëw travail moo war njëkk a ñëw le travail dans l'éthique nañ liggéey liggéey bu am solo ci suñu am réew bu ko defee dañuy am temps bu bëree bëri di mën di dem suñu ay loisir waaye itam di mën a jublu ci li nga xam ne moo ñuy amal njëriñ saa su nekk buñ ko deful rek ëllëg ko rëccu te dinañ am regret boo xam ni duñ ko daal di fàtte ba mukk li a xam ne nag gis nañ ko ci jeunesse sénégalaise ñu ngi ñaan yàlla bu bañ a dañ ba mukk ndax kat gis nañ une jeunesse déterminée une jeunesse prête à tout faire pour que le régime en place soit renversé dans les règles de l'art teg fi régime boo xam ni buy amal njëriñ sénégalais yi lay doon. nag nañu waajal atum 2024 te nag restons focus xam exactement fu ñuy teg suñu tànk xam itam ndigg sërëx yëpp yi gars yi mën a teg ngir daal di ñuy kàmbal ndax kat ñëpp teg nañ seen ay gët Mollah Morgun niñ ko def te buñ deflu attention ñeneen dinañ suux moo tax nag objectif bi nañ ci daal di jublu buñ ko wàcc mukk te nañ xam ni suñu Sénégal gii bu baaxee ñoo ko baaxal bu bonee itam ñun rek ñoo ko bonal AGT News